Vous voulez suivre des vidéos, des séries et des sketchs sénégalaises Abonnez-vous en masse sur votre chaîne YouTube Sangoguma TV. Sangoguma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble. jànq ci loo nekk. maa ngi naa la. yaa def sa jom ma nii. sa teint marron bu am jom. <laughs> ah man li moo tax nga neex ma da ngaa jom nga ma. ñëw waaw ci ne. maa ngi nii rek. ah ba yaa ngi waajal màggal gi rek. ah gis nga boo gisee ni ma mel kay xam nga maa ngi waajal. Eh, maa ngi meloon ne sa muuraay gi wala li lu ko waral. yow tàngoo nga def sa muuraay def sa taybaas bu jot. jël sa zipp bu egsi fii yow wàccee sa taas fi gis nga lii soo ko defee ñoom ma doo am jëkkër mais far sax doo ko am. ay yow lii rafetul nii. lii la moo ci rafet lii moo rafet sa tuba yu am na ni man su ma sañoon dinaa soo tuba waaye xam nga sa mbaa bu ko yëgee eh, jeex nga wandoo sa sër ba génn def sa tuba yu baax génn moom waaw. te man sax waxuma yooyu yëpp man yooyu indi ma fi li ma indi laa lay wax. sama waa ji ma wax. dama nekk dafa ma eset la rek mu baar be fu nekk mu koy waxee. mais la day ñëw màggal. kii na ñëw ma accueillir ko. waaw màggal gi li si bëgg. daa bëgg ngeen xaaj di fëlaale sànneeku def lu leen sax dëgg nee ko xam nga lan laa bëgg nee day na appartement appartement bi nag dem naa si benn paa ba lijjanti ko mat na moom appartement deux jours trois jours mu jeex fii ak màggal gi fi réew mi tool. eh màggal gi nag ci nga mën a amee sa occasion dara nekku ci appartement. sa papa yaa xam lay waxee moom. sama papa bu yëgee loolu damay eh, du ko yëg daal wax damay gëm nga daal di naxasaal def daal xam nga gan yeeg yooyu. mën nga daal sa papa du ko yëg ak sama papa du mu fii. waxaale naa ko ba pare nag te di nga ca dugg soree naa seen kër. loolu de du ma ko def. ndaxte yow sa teraanga sama teraanga kon dama ko war a nangu kooku xale bu góor bu am teraanga la yow nag woo nga eh li li lu eh eh eh eh xoolal du ma sa morom may nga dama ci fatu yo kalau yow xanaa bi ngay dugg sama kër gi laa ci kër Papa Kidlang na teman sih. Eh, yo eh eh eh kon yo bulwak de. Yo bang bok yo eh bulwak de. Yo eh do ma sama morom. Xam nga sama kër li dama ko fi bañ. Bo kuma xamu deg ngam. Yaa ngi deg gis nga sa ki ni mu mel bo mën ta mel non kër gi bu fa aku sa tank. Li bëgguma ak sa li nga def sama bi nga mel non muskarita. Li war na la. Li war na la. Yo xana xamu nga ci waccaay magal. Da ngeen ci magal ngeen def soy bon yi li moy la. Jank li ma la wax bayyi ci xel yow sa tank ki nga wara wañ. Mu ni eh La ilaha illallah. Marème Marème Marème tooñ nga ma. papa kii gan dong la dama. eh noppi laa tam eh xam nga sama jikko de xam nga sama jikko laa lii bëgg duma ko ci sama kër yow kii xale bu ndaw dina sol de toog naa fi dégg li may wax ñu mu ne effiliante. damaa def dara. defoo dara lii nga def ni le moom laa bëgg nag lii mu ñëw sol nii bëgg sama kër gii loolu bëgg te bis ah, bis. billahi billahi léegi bàkke maam te bis bu mu ñëwee ci kër gi fekk nga sol jubay ay waay jëlee su ba sa yaay dina ma mere danaa def lu métti lii bëgguma ko bu ma amati dégg ñëpp yem xam nga kii lii mu wax nii yow yaa tax mu wax waaye xam nga ne fi ñëpp ma jox te bi ci des mooy day euh, jaar comme que man sant naa naa ko li koy sant loo moom mu lànk naa la ne du ko def te may bàyyi loolu dinaa ko lijjanti lu may lijjanteeg moom waaye lii sunguf la xolal no ma ci arwale nga nga defal ma ci laax ma ma ci mu ne da nga ko jëm laa wax nang ma ak defal ma ci laax wala wi dang lu ma wax te nak ki mu fi gisaté yi ñal ñepp la boole tolo xam may japp li ngay jaraat sim la ilaha oui. maasàllaa waaye oui ah dakkaanal yëf rafet na de merci ah maasàllaa yow wala ab ab ab séeréer wala ab tukóor ma séeréer laa ah dakkaala moo tax nga mel nii kay ah maasàllaa mais si jëm ca kafe ga ñu bëgg nga nga nga nga nga def ci sa sa sa sa barkeelu rek bu ko defee ñu fasal maam jaara bu baax a baax a baax a baax incha allah rabbi soob yow daal wàcce rek incha allah taala. ay waaw bu nga dëgg waaye gi moo tax. mais amoon naa yéene trop nag jox la jox la àddiya. yaay booy dama la ci fasal am maam jaara suukar su jëm ci kafe ga kafe ga ñu defal bàyyi faale fële ci liggéey ba. aywa la ci am maam jaara xéwal yi saawaan baawaan. ak maa ko jox na jaar yow yow nga jaayante ko jaayante ko xam naa leen wax wuy ma jaayante lu wétadu yi yéen fu ngeen dugul xaalis génnal nga jaayante ko fii ñu fasal ci am maam seen faal. bilaay jaral soxna jaara su ma ko waroon ba tey def nee naa jaay faal nga ah, ni nga mel nii xam naa li ma la wax ñi ma ko dox 100 pour cent ma la wax barke Seera Faal dama la ci am maam jaayante ko rek nee naa la 100 pour cent dama kaa bàyyi sa kër ga yow koy xaman kenn du ma laay àjjee ma ma yor ko bañ la ko jox dama koo fàtte ci biir kër gi moo tax. waaw ah, yow yaay faal laal te kon mais yow doo yaay faal yow doo yaay fal de. ah waaw yaay fal yëpp ñu jaayante yow nga làggal ba jaayante buñ jëndee suukar buñ kafe ga. bu ñuy joxe addi rek moo tax man nekk ma yaay faal. parce que Serap Fall yow doo tax na man ma a da war a jaayante ma xam ne yow yaay faal nga. yow yaay faal ko waroon jox ko da a dégg dëgg. yow metti nga de. ah yow yow yow yow yow mun suñu ab jullit yow kenn xamul loo doon man maa lay tooñ yi rek naan la ay kii yi mais yow doo dara yow yow do yaay fal yow yow de mënu suloon jël li wara jaayante naa la wax sa bop ndax yow xam na sa bop yow yaay fal dañuy jaayante deug deug yow de ma doon jaayante sax doxatuma la wa nga dem dara way do am dara yow dara do ko am lo xol xam ni dara do man lo dama defone ak ay fal nga ak ni nga mel mais ni rek ngeen di def di bu mu do ko app yow li nga son dang ko app xam na ni rek ngeen fi nekké di app ay grefal lo ngeen app ko do yaay fal yow ah, ki di bu yaay bay fal yep meloni mom dara duñ ko app wa fi ki mom lan la ko wara wax bu de mëna do do sa abé bi Sangoguma TV, Sangoguma TV, Sangoguma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble.